Euh, le procureur va va, va ouvrir une information judiciaire buñ jógee ci loolu buur yi dañuy daal di dem ci euh, mort suspecte d'Aïcha à Barney, sa copine arrêtée par la police man nag cas bi daf ma euh, genre xaw compliqué parce que moroomam la ñoom ñaar parce que Aïcha il a 15 ans xaritam bi ñuy wax nii il paraît xam na lu ko wala moom moo a aussi 15 ans Mm, Aïcha dañ ko yoni boutique ñom ñaar ñoo and mais xalé bi euh, day je dirais pas Kiray euh, présumé manam xalé bi ñi yaakaar ni xam na li xew. mom mm. ñom ñaar ñoo àndoon dem boutique mais biñ ko laajé bi papam ñëwee laaj ko niko ani Aïcha dafa niko ko. ànduñu woon boutique mom boutique la doon dem man Wave la doon dem. Mm. té papam néna baax ji c'était le lendemain du euh, du euh ñom boutique yi duñ tijji foofu surtout Wave yi Wave yi duñu liggéey liggéey ñu jour boobu daal après mu mu xaw affaire yi xaw bizarre si moom la police daal di wax ak ñoom ne leen cas bi dafa urgent insister pour que ñu taxaw si coup que coûte après que la police la ñëw jël xale bi yóbbu ko bi ko enquêté pare si la police dem ci lieu de crime bi daal di gis ni Aïcha ci euh, canal bi la nekk et que dee na ba commencé woon a décomposé wu mm. mu nekk lu compliqué parce que moi je pense que moo ay jigéen Mm. c'est pas possible mu rekk il y a quelque chose. Mm. xam naa dinañ si ñëwaat sax incha allah. Mm. peut-être demee bu amee yeneen yu gën a leer. à Grand Yoff aussi un homme tué par balle moom tamit ab chauffeur taximaan la. il paraît que dafa dem dafa ñëw course doon waaj a demaat beneen course daal di gis benn xale bu jigéen bu xam te ni dañ il paraît que dañ ko doon agressé. ci bëggoon ko wàllu si la recevoir li nga xamante ni moo di euh, euh, bal ba mujjee si ñàkk bakkanam on on a buri cinq euh, faits divers yooyu time mm-hmm. comme presque émission